daje di ay kilifa di ay sëriñ daara di jàngale alquran al li ñu def tey nag dañ ko teg ci ndigalu conseil municipal bi ginnaaw bi ci waxtaan ak ñoom ngir mën a fàttali ko démb ndax gis ne dëkk yi nga xam ñoo gën a développé ci àddina mooy dëkk yi gën a fonk seen cosaan fonk seen culture fonk seen sociologie Turquie rek firnde la te cosaanul Mbàkke doonul dëkk buñ gor dëkk Mbàkke daara la daara jëm màgg ba doonul dëkk ba toll fi mu toll kon ñu ngi nuyu kilifa yëpp di si jiital suñu Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha te moom buñ ñu ko nuyoo rek nuyu nañ mbooleem kilifa yi diine yi lislaam yëpp ci Sénégal ak ci àddina bi ñu ngi nuyu tamit suñu Abdou Mbacké yàlla yu buur ñi nga xamante mooy xalifa maam borom saam ñu nuyu suñu Abou Mbacké ñu salaam ñu njabootu bu Bousso bi di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall njabootu Njóobeen njabootu Cerno Abdoulaye Bousso mi toogal maam Seydi Hadji Malick ci dëkk bi ak mboolem kilifa diine yépp bu ñu ndax ñuy alxuraan ñoo mel noonu koo ci tudd rek tuddaale nga ñëpp kon kenn ku ci nekk rek ak kër gu mu mënti doon sëñ Masamba ñu ngi sëñ Cheikh Bousso moomu ak njabootu Bousso bi sëñ Baara li ñu fi dajale tey mooy xam ne nit dana am doom ne dama ko bëgg dugal école français yóbbu ko jàngali doomam français nit yi am doom ne man dama ko bëgg yóbbu daara ñaari xale yooyu yeme àq ak yelef ci dëkk kon kenn ku ci nekk lay sa àq ak sa yelef ci dëkk bi dañ la ko rajo tàmbali nañ nag lii mooy sixième édition ba ren dañ ne dañuy njëkk a génn juróom-benn million def nañ daan def wante yit nañ faag yeneen juróom million tànn fukki daar ak juróom ñu xool leen lañ bëgg bu dee mbaar bu dee ay toilette lu mën a doon ñu defal leen bu déwénee bu ñu amee lu ëpp lool it def lu ëpp lool di ñaan yàlla léegi ni déwén tekk ñu fi kenn ku nekk man lu ëpp la nga mën a waaw bu ñu amee doole rek dëgg yàlla def lu ëpp lu téeméeri junni yoon alxuraan nag ndax damay waxtaan ak sama yenn xarit lay léeg ci ay modèle de réussite mooy nit ñoo xamante dañu réussir seen àddina bi ñu xoolee ci gën a réussir àddinaam mooy ci fi dund bu bàyyi koo fi nit ñi di ko fàttali ko di ko roy bëgg seeni doom mel ne moom bëgg seeni njaboot mel ne moom ba bu ñuy waxtaan sax di jël exemple di ko tudd koo mooy ki gën a réussir ci àddina bu dee ci réussite àddina yi koom-koom yi boo xoolee mën nañ ne ñu ëpp alal ci Sénégal buñ dee fukk juróom-ñaar ñëpp daara lañ jóge li ko waral sorewul ndax léeg-léeg dama koy faral di wax nee naa leen man du ma complexe ndax li gars yi jàng jàng naa ko ci tubaab ak ci diine te it dox naa di doomi mag jaar fu bari kon bu ñu bëggee réussir faaw ñu dellu ci cosaan dellu ci cosaan mooy suñu maam yi liñ ñu réussir boo xayee junni yoon ñu réussir benn te la tax ñu réussir ko mi ngi fi ba léegi ndax bu dee njàngum diine muy alxuraanul karim dañuy jàng nit ki muy mokkal fara ñu di ko yar bu dee njàngum classique mooy bi jàng ci tubaab bi dañ la jàngal mais deesu la yar kenn du la dóor te ñaari nit nag boo amee ñaari doom muy ay seex juddu kii nga jàngal ko kii jàngaloo ko ki nga jàngal mën naa dem ba am salaire juróomi million ki nga jàngalul munta paase lu dul fukki junne ak ñaaral fukki junne ngir dooleem rek la mën a am wante ci ñooñu jàngal boo xoolee ñi ci ñi ci gën la ak mucc mooy kañ yar ndax xam-xam képp ku ko yor ak bu mu mënti doon daan lu toog yar saa soo jógee ci loolu daan ci coono kon loolu moo wuutale kuñ yar jàngal la ak kuñ yarta jàngal alxuraan nag képp kuñ fa jaarle ci daara daañu la jàngal daañu la yar kon nag suñ xaal seen taxawaay rafet na ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di sant mbooleem conseil municipal yi ma àndal ci liggéey bi ak administration municipale bi ak ma àndale di liggéey ba agsi sant sëñ meew ni mii di suñu mbokk di suñu xarit wante it di sant ñëpp tey nag bis bi dañ ko jagleel suñu maam Serigne Saliou Diop ngir liñ ci jublu rek mooy dafa doon magum lislaam wax dëgg yàlla yàlla suñu borom dogal ñu gis ko sopp ko ëpp na ay fukki at ak juróom ñoom saa su ma ko rombee lu ma yàkkamti yàkkamti du xam sama yàkkamti dina fa jàdd nuyu ko waxtaan ak moom te lu xat-xat dina ma dinaa am ci lu ma jële ci moom noonu ñu defoon nag ak suñu bàyyi suñu waree jafara noonu it lañ fas yéenee mag ñu baax ñi ci dëkk di leen tànn di leen tudd bis yi ñu leen fàttaliku ngir ñeen ci mën a roy ñu jàpp na it teraangay alquran kuñ ko defal rek képp koo xam ne laa nga ci alquran rek jàppal na yow lañ ko defal kon nag ñu ñaan suñu borom suñu borom may ñu kàttan ba li ñu yéene ci alquranul karim ci dëkk bi ak ci sëriñ yi koy sëriñ daara yi jàngale alquran man ko ba defal lu kawe seen yoon yàlla xam na ne bu ñu sañoon kenn ku ci nekk fa nga nekk dañ la fa fekk defaral la fa nga ne jàpp la it ba nga yokk ba yëpp lu jëm yàlla ak alquran ngeen jàpp ne tamit jàpp ne ci suñu it dëgg yàlla lii rek firnde la ndax yéene amul lu ëpp lii danañ ko def moo bëggoon it ñu ñaanal sama sëriñ bàyyi mbay mais suñu borom dëgëral ko ndax jàngal na man yàgg te dimbali na ma ci lu baree bare bare bëggoon it ñu ñaanal ustaas bu sa moom it jàngal na ma taxawu na ma ci lu bare waaye Ahmadou Samb it dañ yàlla daan defar ay lënal fële moom jàngal Masaalikul Jinaan tëralal ma ko tëralaatal ma ko ñaari yoon ma ko ñaanal bu baax seen borom yokk ak ki ma jàngal alquranul karim muy Omar Diallo nekkoon kër Baye Omar Ndiaye Atma ñaan suñu borom dafa leen ay tawfeex ñu jiitu it suñu borom dafa leen ay maxam ak ay darajaat di wane daal suñu mbégte ak it suñu engagement ci lépp loo xamante ni jëm na ci daara lépp luñ ma mën lañ ko def maa ngi wax premier adjoint ne ko damaa bëggoon bu lii jàllee nga ànd ak commission bi nga xamante ñoo yore wàllu diine Oustaz Amadou Bousso ñu xam amee liggéey bu rafet la liggéey moo ko ñu àndal ci commission yi pour que sëñ daara yi ñu def daara par daara recensé xale yi ñu amul kayitu jóg mën a wax ki nga xamante mooy président tribunal mu organiser audience foraine jàppale leen def leen ay kayitu juddu ba sëriñ daara bu ci nekk donc li muy jàngale mu am seen ay kayitu juddu dañ ci waxandeem bu ko ci màgg booram carte d'identité ñu beneen bi ci des it wax naa ko ne ko bu ma sañoon li nga xamante moo jëm ci wàllu li nga xam moo jëm ci wàllu couverture maladie universelle daara ju ne bu mënta jël dong yépp it ñu mën cee jël ab lim bu ko defee jël leen ngir man leen euh, jël en charge pour euh, pour li nga xamante ni moo jëm ci seen wér-gu-yaram ndax léeg-léeg man lu ma rafetlu ñu jël en charge xale yi nekk ci école française bu ñu feebaree te waa daara ku ci feebar dina jël en charge dañuy nekk ci école française état moo leen jëlal lépp ñii wax dëgg yàlla ñoom ñooy liggéey di daan seen doole di jàngale kenn fayu leen ba pare di dundal xale yi moo tax nag ñu am mbégte ci ki nga xamante nii muy sëñ Cheikh Diop mi nga xamante nii dëgg yàlla sëñ xaalim li nga def fardal kifaaya la ñépp ko defaale ndam loolu nga am ndamu sëñ daara yëpp la ndax jàngal nit ba mu génn dem ci concours ba àgg ci foofu mu ci àgg siggil na Sénégal fii mu dëkk wante it loolu du bett kenn te fi mu bàyyi ko cosaanu loolu mooy alxuraan kon ñi ngi sargal sëñ Cheikh di sargalit sa bokk yu tedd yi nga àndal def délégation te ñëw fii ngir mën a fekk si bi ñu leen sant bu baax di leen gërëm fi may daanele nag euh, commune Mbacké euh, ci wàllu suuf seeg dëkkuwaay bi am na liggéey bu mag buñ ci tàmbali depuis ñeenti at ànd ko cadastre impôt domaine urbanisme préfet ak procureur pour ñi nga xamante ni am nañuy kër te amul këyit ñu jàppale ñu am ay këyit ñu amoon këyit te dekk ay kër te déclaré ñu jàppale ñu déclaré wante li nga xamante ni dafay des mu néew mu bari te kenn dëkkewu ko te kenn manifesté wu te te it joxewuñ ko woon ndax lu ci bari joxewuñ ko woon ñu mën ko séddale askan wi askan woowu it gis nañ sëñ daara yu bari wax dëgg yàlla fi ñu nekk moomuñu ku ci def demande it jaar ko ci commission bi naa ko jox waa Njaareem ñoom ñi ci mën a am ñëpp mën ci am bu defee bu liggéey bi continuer it mën continuer nga xam noonu lañ ko xalaatee suñu bopp yi yëngu ci wàllu mécanique ñu wutal leen ñoom it fu ñu nekk moom ko seen bopp bu ëllëgee fañ nekk di fa daan seen doole ëllëg si biir kenn du ak seen jëf waaw ab dëkk nag nii lay doxee dëkk dañ koy dellowaat ci cosaan ndax pour Mbàkke réussir ak tuub faw li ko sos te taxoon koo jóg Touba boo xoolee 45 degré lay dem ndax ma neexul tàng lool mais lu waay yor soo fa indiwu sa xel lool amul géej li ko war mooy pas-pas ngëm te pas-pasu ak ngëm googu borom lu mu am rek alxuraan ko moom kon nag bu ñu góorgóorloo ci li ñu yàlla defal ñu téye ko gëm suñ borom dinañ ci fekk bu boobaa na doon jàll ñu ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñ yàlla suñ borom subhaanahu wa taala defal ñu koor bu mu nangu yokk ñëpp ba yëpp kenn ku fi nekk loo fi ndewoon ci tawat suñu borom saafara ko di ñaan suñu boromit it dimbali ñu ba lépp loo xamante ni song nañ ko rek suñu borom defal ñu ñu ngi lay bu baax di gërëm mbooloo euh, alhamdulilah ni ko gisee sant sant suñu borom baax a baax ndax dafa mel ne rek euh, ni ma ko waxee woon ci jataay bi euh, équipe municipale bi xam nañ li leen war def def nañ ko nit nag bu xamee li ko war def ko dañ ko ciy sant ndax ku ne xam na ni li composé municipalité bi mooy waa dëkk bi ñoo dajale seen kaddu jox ko benn équipe ngir ñu leen saytu buñ nee waa dëkk bi nag ñëpp ci lañ ku bokk ci dëkk bi ci lañ kon daara yi ci dëkk bi lañu bokk am ci àq yi nga xam ne moom la si ñëpp am ñoom nag bu ñu xamee loolu delloo leen njukkal jàpp bis defe naa bii mooy sixième édition bi at mu nekk saa bu ñëwee eh, la ñuy tuddee fonds dotation ñu xam ne ñoom yokk nañ ca lañ ca mën a yokk lépp eh, taxawu ci daara yi. ci turu daara yi dañ leen di sant bu baax a baax te leen ñaanal suñu borom mu yokk leen te gën leen a kattanal waaye di ci jaare di lancer maire di lancer seen yeneen moroomi maire yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi te xëy na gisee guñ ko noonu ñu bàyyi ko xel xam ne eh, ñoom buñ nee maire dañ naan le premier magistrat de la ville ñëpp la fi nekkal ku fi nekkal ñëpp nag da nga war a bàyyi xel ci ñëpp kon eh, ñu jàpp ne municipalité bi lii mu def royukaay la ci yeneen maire yi nga xam ne gisee guñ ko woon noonu ñoom it ñu gisee ko noonu di bàyyi xel njabooti daara ya fa nekk lañ man lépp ñu di leen ko taxawu te xam ne waa daara ku leen taxawu ñu taxawu njabootu askan wi dañuy am société bu màgg société bu jëm ci kanam waaye buy dem ci kanam yóbbaale ca jàmm ndax ci euh, service askan wi lañuy xëy ci la ñuy gont nekkit ay régulateurs sociaux yoo xam ne réew mi def leen a soxla ba noppi di ay éducateurs di ay enseignant di jàngale di yare te loolu yëpp aw askan mënu cee ñàkk dara kon ñu ngi sant maire bi ci seen taxawaay di jaarale cant gi ci euh, Serigne Ahmadou Bousso mi nga xam ne mooy président commission religieuse bi mu jaarale ko ci mboolem conseillers yi ba mu àgg ca Serigne Abdou Mbacke Ndaw ma nga xam ne mooy maire bi te moom muy doomi daara laa xarawa du kii man su defee lu mel nii ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax